Hadj Mara ndax ñëpp a war a samp comme lu demee ci wàllum xëccoo wàllum laaj moo xam réew moo xam euh, élection bu mu mënta doon ndax ndax doomu aadama bi yëpp am na ñoo xam ne ni loo xam ne ni euh, dañ koy dégg ay année mhm. du ñu sax mos a jege premier euh, du ñu mën sax jege trois premiers wala quatre quatre premiers yi mhm. te dañuy forcé mais faw dañu war a mën a bokk ci xëccoo ndax loolu euh, ci réew doomu aadama bi lay dañ koy euh, listixaar dañ koy xam ba xam ni kii war nit danay am tolluwaay yoo xam ne lu mu ut rek mën na koy am. Mm-hmm. loolu day faral di am yenn saa yi macha allah nit dana ay biddewam doon biddewu président. Mm-hmm. danay am waaye nag man nay rëcc su rëccee it yàlla rek a xam ni ma ko la ko waxee léegi 60 ba léegi quatre président lan amagoon. kon tegtal la si ne macha allah yàlla moo koy jox ko ko sob mm. donte woon nit ñëpp jox nañ ko jubluwaay te yalla tànn keneen it loolooy am mbiru nguur moom xul allahuma malikul mulki toxti mulka man tasha wa tansix yàlla waxul dana nangu dana wàcce de waaye dana foqarti it bu ko neexee nguur sakk ko soob mooy tax nan ko delloo yàlla te ku xam ne bi am nga yéene bi macha allah nga sabablu sa kéem kàttan lu la yàlla jox nga jël waaye du ñëpp du ñëpp du ñëpp noo mën a jiitu tey du ñëpp war a xëccoo loolu moom fa tabarak laa lu wér a wér la Ahmadul Amin di ñaan rek yàlla yokk jàmm si comme noonu nga ko waxee des na tout weer yu néew dinañ di dugg si ay gox goxaan noonu leen ko tuddee eh, boo nekkee si gox nag jox leen yitte yéeg leen wormaal leen respecté leen soo ñeene leen jiital leen ma defe naa jarul yenn coono yi fi tabarakallah wala soo ko bëggul sax ñoom noo la war a wax force yaay jiitu macha allah kon duy jar noonoo geek yàqante bu métti bi Mouhamadul Amin. xam mbër moo xam ne taxaw na temb. Mhm. Euh, Mouhamed Mouhamed ni ñu koy waxatee Ahmed Aïdara. Mhm. Ahmed Aïdara moom moo ngi mu sàmm ndënd te <laughs> ko si encouragé macha allah gëm boppam la mhm. boo nekkee si quartier macha allah doonoon fa ndongo daara wala nga doonoon fa eh, étudiant wala wala wala nga dem ba nga ne war naa mën a jiite quartier bi waxatoo ko sa ay war naa mën a jiite département bi loolu li ñuy wax gëm sa bopp la macha allah comme gëm na ko ba woo bay wuyoo maire de Guédiawaye fa tabarakallah la la gën si moom rek yàlla na ko yàlla defal nu ngi koy encouragé si loolu bu baax a baax a baax macha allah dafay bokk si fayda di bañ di jombale sa bopp lenn luy xéwal na ma ko doon waxee rek ne ñaar ñii demoon si sunu maam alxaji Fadilu yal na yàlla tas nu si barkeem kenn ki am na faydaay ne ko man dama bëgg doon transporteur. waaye kenn ka mu ngi koy jombale boppam ba ne ko sëñ bi ma ñaan rek buy wàccee rek may dawal. may fay la alhamdu kooku du mos sa doon transporteur. mooy tax gëm sa bopp. dafay am solo te lépp luy xéewal nga jàpp ne war naa koy mën a am. fépp fu nit àgg si xéewal. nga jàpp ne war naa fa mën a àgg. dafay am solo dinaa di wax ne boo jombalee sa bopp xéewal. booy wéetal yàlla di koy ñaan néegu ñax da lay jox buy senn ndax day xam ne amuloo bopp ndax bàyyi nga fi xéewal yépp macha allah bàyyi nga fi building yéeg étage yeeg terrasse yi naan ko yaa bi néegu ñax kon macha allah bu la ko yumee sax da lay jox boo xam ne macha allah du téye taw ndax day xam ne amuloo bopp mooy tax noo bëgg a mel noo bëgg a mel rek noonu la la yàlla di def boo tegee si yoon moom di góor góorgóorlu di moytu àq fa la lépp luy xew rek bul ko jombale sa bopp fa la kon noonu nga ko waxee rek ku am yéene nekk maire am yéene nekk député am yéene nekk président macha allah su dee sa cër rek yal na yàlla leeralal la sa yoon fa tabarakallah. Hmm. jërëjëf El hmm. li nga xam ne sax ci wàllu woowu sax. xam hmm. naa ne laay tëjee ba léegi. Eh, muy wàllu taxawaay yi nga xamante ni mag ñi daanañu samp. Mm-hmm. ndax la sa wëjur. Hadj mm-hmm. Alla Cissé ñu bëri. daanañ jógee fu nekk àddina daan ñëw lu wér wér xëccoo. Hmm, hmm. li euh, sant sant si yàlla bu baax a baax a baax mais ku ndax bu la yàlla mayee way jur boo xam ne foo tudd turam am ñu ne xam nan ko defe naa doomi dew war nañ niin macha allah te sant yàlla bu nu àggul fa mu àgg am na lu mu nu bàyyeeg li nu yàlla jagleel ñu si sant yàlla bu baax comme noonu nga ko waxee waxee mm, macha allah yàllaa ngi ni defal sutura barab booba nu nekk danañ fay taale nit si ay xéewal taal nit si siiw taal nit si lépp lu ko ba gàllankooroon loolu faxas si katun yàlla loolu yàlla jag nan jagleel nanu ko macha allah nu ko si sant bu baax a baax a baax yàlla yi jagleel nanu ay turam yoo xam ne nu ngi si yëkkati nit fa tabaraka la nu ngi si defendre képp koo xam ne bi ay noon dañ ko bëgg a faagagal loolu yi nu ngi si sant yàlla bu baax a baax a baax Ahmadul Amin nanu koy waxee di koy répété waat di koy delloo yàlla it di koy delloo yàlla di sore lool ak di wuyoo maaman waaw ma ne ko allah lu man di ñëw rek dañ koy delloo yàlla xam na jaamam lan jaamu ki man lan fa tabarakallah Ahmadul Amin ñëw mhm. bu nekkee sens contraire sax ñu daanaka dañuy tuumaal rab lu bëree bare mhm. waaye ñu bëri dañu ba doon laaj naan ma ñu ci bëri day góor ñu bëri bëri tey euh, tey seen wàllu ngóor moo xam tële euh, daf leen gàtt ñëw kàttan. waaye lu ñëw dañuy jël automatiquement ne wàllu rab rab a ko téye. changement mhm. daal loolu tam doomu aadama yi naka la ñu mën a diagnostiqué xam ne kii euh, kat néew kàttan moo ko rek. Mhm. Euh, moo xam dañ ko takk xalaat loolu yëpp tam dafa dem ba xaw euh, bopp askan wi. alhamdulilah xam naa suñu ko mënoon day rab bu nu ko mënoon ñoom danañ def marche bi <laughs> ndax bari na bari na bari na lu leen di tuumaal te fekk te càggante sa la macha allah te fekk càggante sa la ngay lekk càggante sa eh, la la wër ni ngay dundee macha allah te it ni ñu koy waxee Mouhamadul Amin mm, mbiru ngóora boobu nga wax léegi man dama naan bu ñu demee ba si kanam mm, fan la ñu jëm laa xamul ñu ñi nga xam ne yàlla dogal na nuy togg ak lenn si ay jaamam da ngay toog ak mu la koy tawat boo ko laajee ay atam toog naa koo xam ne vingt cent la mu wax fa tabarak la ki am vingt cent commencé di wut lu koy sawarloo kooku bu àggee ba cinquante ans fan la jëm te nga daan gis eh, mag ñi daan dem ba soixante dix ans quatre vingt allah di di ngénteeg yeneen a yeneen macha allah maa ngi jéglu si kàddu gi tegtal la si ne war na noo defaraat toogaay yi war na noo xencuwaat démb xencuwaat tamit mag ñi nanu doon dundee macha allah ni nga koy waxee mbiru rab mm, si couple ki nga xam ne bi moom mm, jàmmay am danay sawar dinay kaf dinay rey waaye su demee ban tëdd xol bi commencé di yëngatu dootul moom boppam loolu moom foo koy gis ñaare ñaar yi la muy daddaatle walla rab loolu moom ñaare toujours effet si ñaari domaine yooyu la ndax nit bu nu la saf bu nu safaanee seen diggante eh, bu jegee amee lool rek macha allah day mel ni lanu programme yoon day activer su ko defee mooy tax ngay dégg toujours bu ma soree macha allah jàmm day am waaye fu ma gisee rek xolam day tàng bari na eh, ñoo xam ne seen góor a wàññiku na te fekk te eh, fekk njabar si la sore na ak rab xamee ki nga xam ne sëy na ay at ami njaboot tey mësula yëg dara dem ba mu yàgg loolu wàññiku loolu su ko jiñee rab rek tooñ nga macha allah eh, bu fekkee nag ak tàmbali moom da nga di yëg sa bopp lool waaye soo bëggee àgg si soxna sa cër yi bañ ñaare loolu dinay doon rab imaam mën nay doon si ku jigéen ki nekk ak loo xam ne feek tojtaluñ ko te macha allah bëri na lool ñoo xam ne dañuy seetu te noonu la ñuy noonu lay demee macha allah pour nu àgg seen soxna dafay xaw di jafe. ay ñaan dafay am solo Mahamadul Amin eh, dal su fekkee dund gi xaw na am ay fan te jàmm rek doon am ngeen dem ba mu yàgg sentir loo xam ne bokk si woon loolu moom ñaare day baax lool ngeen seet seen taxawaay génne seeni sarax def seeni toccal dinaa di wax na entretien yi nga xam ne képp ko am machine yaa ngi koy def day baax lool yenn saa yi boroom kër diggam ak njabootam ak la ko yàlla dénk lépp si xéewal mu def sa entretien ba lépp lu fanewoon si seytaane te commencé woon a sanc macha allah bu fekkee reen yu ndaw la amu buddi sànni lu ko may rek man na dem ba bu dëgëre yenn dëgër yi wax yaasubillah dafay xaw di doy waar ay problème couple yi bëri na si bëri na si bëri na si loo xam ne eh, def def la donte woon ak rab dinay def góor loolu macha allah di fas ay cëram ba nga xam ne du am cawarte si soxnaam wala soxna si du am benn yëg-yëgu sëy day am macha allah wala lu nekk si soxna si génnaat bu nu sëyee ba pare yooyu yëpp macha allah eh, rab dana koy def ñaari nag kuy sentir loolu rek mu ngi sa biir yaram su fa nekkee nag day baax lool ngay naan ba màndi di lekk ba suur si loo xam ne dafay ànd ak alxuraan yàgg naa di ko koy wax ne ordonnance la boo xam ne nan si naan ba bi waaye nan si lekk ba regg macha allah day tax lépp lu nekkoon si yaram bi si ay safaan si lu ñuul si loo xam ne bi eh, gàllankoor la macha allah day wàcc di wàcc di wàcc noonu lay demee ba set wecc Mouhamadul Amin. Mhm. Mhm. moom ci listixaar ba xam. Mhm. Euh, lan moo indi gàllankoor ak kalkal yi. buñ ko génnee ba defal ko ay saraxam. Mm-hmm. ma ñëw ci bunt boo xam ne amaana xool nañ ko xam ne lii nag tawatu jamono rek. mu mel ni Wadduha boutique euh, Wadduha yi am na ay yu yoo xam ni ci wàllu ngóore boo xam ne. wallaay ñeent wala juróomi yàlla defal nu sutura si domaine boobu gannaaw bi mënu baaxee sunu liggéey lépp di alquran baaxe na noo kilifa yoo xam ne macha allah ñu yàlla dimbale leen si côté li nga xam ne moom la ñuy wax cosaan te lépp doon bio macha allah comme noonu nga ko waxee mbirum am na si ñaari frotté eh, benn bi day koy gën a rëyal benn bi daf koy gën a dëgëral am na si ay bio yoo xam ne yu ñuy jëfandikoo la macha allah eh, pour nu gën a sawar loo xam ne da leen di traité li lépp luy tawat ba nga xam ne bi macha allah eh, seen ngóor dana mat dana mat cent pour cent si yàlla comme lu mel ni siruna mil force siyaat muraake yooyu yëpp macha allah day dox si domaine yooyu te lépp lépp lépp yi doon yi bio macha allah mahamadul amin taxu koo bari lool ñu ñëw ci wàllu mystique dama koy wax. Mhm. Euh, mystique bari ci milieu yi. moo mhm. xam ci milieu euh, showbiz bi ñu koy waxee euh, ci milieu artistes yi bari ci lool. fa la man lay dama ne fa la sancu de waaye. wallaahi nan di moytu bu baax tey foog dinaa di wax ne baraana kado yoo xam ne bari na lu laxas si biir dangay gis macha allah ku ñëppi tudd mu jekki-jekki fa tabarakallah euh, ñëpp ñu bëri fàtte ko euh, loolu nag yaa quelque chose mooy tax day baax lool di jéem a seet sa taxawaay ba lu ñëw rek nga faxas su ko defee man ngay gën di mucc mm, te euh, loolu la koy maye sarax bokk na si Eh, suuru bokk na si sikkar bokk na si fatabarak la si yooyu amee rek eh, sangu yi bokk na si si yooyu nangoo sañ sa mën na yomb fatabarak la lu jamonoy 1960 ndax la population yi yokk na léegi tey man nga ne lu fi newoon si safaan gën na yaatu lu fi ne si yiw tamit ma ngay wàññiku si si jikko tànneef mu ngi raar kon nag jamono jooju bu nu fa tolloo rek dañuy wan war a gën di fegu war a gën di muslu tabarakallah eh, su loolu de am dinaa di wax ni nit mën nay sonn si yàq la def si junni yu bëri te yow la lay fegal yàq ga du ma téeméer te mooy macha allah turu yàlla leen na tuuti aussi di tudd yàlla di saxoo laab di saraxe